الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع الخيرات والبركات والمعارف والفروضات وعلى آله وأصحابه الخيرة البررة وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان بجميع تطوراته رضي الله عن شيخنا ومريدنا أبي العباس مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وعن خليفته مولانا الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما نيو بوكي جولي نيب طالبي taalibe yi waa Medina waa Sénégal lépp àddina bi lépp sax fépp foo xam ne nit ak fexe laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ak fépp foo xam ne nit ak fay askanu ci fayda tijaaniya bi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ci loxoom la ko yàlla feeñalee yéen ñëpp ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa jëmi bopp ñaan yàlla jotal ñu mbolem càkkuteef yépp di ko ñaan itam mu demee mbas mi nga xam ne lëmbale na réew mi lembele adina bi lepp te yalla mi nga xam moko indi mom rek moko ko mën ñu koy ñaan yalla na ko ci jamm yalla na dem te bàyyi ñu ci jamm bàyyi adina bi lepp ci jamm ndax radiyallahu anhu da na wax ne yalla te jëlliyam yépp te jël jëlleem ci salaamu rek lañu attan jàmm mu ne su fekkoon ne ay yim denc daf leen a ebal kon ci benn waxtu ñu faagaagal mbindeef yëpp loolu nag képp ku ko doon laam-laamee yaa ngi koy gis bi corona bi commencé ba léegi waxtu bu nekk rek ngay dégg loo xam ne tiital na borom xel waaye nag ñun comme dañ ñoo yar yar boo xam ne dañoo xamal ne lépp lu am yàlla la te lepp lu mu bugg a jeexal itam mën na koo jeexal lépp lu mu bugg démé demee mën na koo demee moo lu metti metti rek ci la ñuy ñu dimbalel bopam te yalla ñu nangul mbooleem ñaan yépp te yalla yalla ar réew mi ar ñi ko jité ar sëriñ ci ar xulafaaw ak ñi rek seen gannaaw lepp ar itam dar alquran yi nga xam ne ñu ngi ni dajé tay pour waxtaanee mbir mo mbir mu mag la ci mbir yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moo ñu ko bàyyee moo baaxoo woon di ko def at mu nekk muy njàngam kaamel mi nga xam ne daan nañ ko jàpp li ñi jógee fu nekk ñu daje fii ci Medina àllarba alxames ajjuma mu julee ajjuma tëj ko ñaanal yàlla réew mi ñaanal yàlla jullit ñi ñaanal yàlla lislaam fu mu mën a nekk ci àddina bàyyi mosu koo def ci ay naay boppam wala ci soxlaay boppam waaye ci soxlaay jullit ñi ak réew mi la ko def moo tax xalifa bi wax na ma wax na ma ne naa seet naka lañ koy organiser ba def ko ndax dajee nit ñi fi mu nekk nii yombut ndax ni mbir mi tëddee waaye nag comme ku nekk sa daara nga amee di fa xëy di fa jàngale mm. mu ne ku nekk mën na koo organiser ci daaraam su ko defee buñ jangé ba aljuma ci suba ana baraham baraham bité tey baraham doomi serigne dara cheikh bité bayam mo coordonné ak dara yi di xam lim yi ñu am yaakaar naa carnet yoy war na ko gis su ko defee liggéey boobu mu topptool ñu dara yi ñi nga xamné itam amuñ dara te bëgg jangé ci jumaaji nañ jàngee ci jumaa ji waaye na distance yi sodante su ko defee lépp ñu fekk ko xamal ñaata kaamil lañ am ñi nga xam ne itam bi ci réew lañu nekk mu ngi ñuy dégg ñoom ñëpp ku ci nekk loo jàng rek mën ngaa téléphoné joxe ko suñ mbokk maanaam xaaj dawra mu ngi nii li aju ci Nigeria yëpp danañu fopp tool daara yi nekk foofu te daan participer ci bis bi dana ko toppatoo ba xam ñaata lañ fa am mu jox ñu ko ñu boole yëpp mbokk itam sëñ daara cheikh wul rabbaani mu ngi nii nga xam ne mooy imaamu naafila gi fii ci Medina ni ko baayam nekkee woon ak maamam moom itam li aju ci Mauritanie dana ko toppatoo wax leen ko yëgal leen ko ba nga xam ne ajuma ci suba teel ah lim bu ñu am foofu rek danañu ko mën a danañ ko mën a jox mu jox mu joxe ko su ko defee buñ boolee yëpp xalifa bi mu ne buñ boolee yëpp buñ jullee ajuma ñu def xatma bi ñu ngi ci waxtoom dëgg-dëgg mm-hmm. ndax yàlla dafa wax ne man yujibul mubtarra idaa daa wa yakshifu suu loolu nag ci lañ toll fi nekk ñun ñëpp def nañ ibtiraar ci waxtu yu ñu toll xay wii nga xam ne itam xay la dëgg dëgg te ñëpp ragal ko yàlla mi ko mën a uññi ci moom lañ jublu jublu ci téeréem bi jàng ay xatamaat yoo xam ne amaluñ ko lim waaye nu mu gën a bëree rek ñu jël ndax bàyyi amalu ko woon lim amalu ko woon waxtu pour bañ mu nekk benn bidaa boo xam ne daf koo sos ci kaw nit ñi waaye nag at mu jot rek daan na def bu mënee am rek mu jàpp ko rawatina balaa nawet de commencé ñun nag fi mu ne ñu ngi am soxlaay nawet bi waaye ñu ngi am soxlaay xay yi itam yàlla yóbbu ko ñu ngi am soxlaay itam yàlla ubbi ay bunti xéewal ci réew mii ubbi fi ay bunti jàmm ubbi fi ay bunt wërsëg ubbi fi ay bunti xam-xam yàlla nag digg nañu dig loo xam ne xame nañ ci ne guddi waxtu deme rek bëccëg moo ci topp ndax ne na fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran usru bi foofu benn yoon rek la ndax alif laam ji ci nekk waaye yusru bi nga xam ne dafa baamu ñaari yoon ci rek mooy ne jafe-jafe bu nekk rek ñaari yomb yomb moo ci topp kon jafe-jafe bii ñu nekk ñu ngi yaakaar ne ñaari yomb yomb moo ci moo ci tegu yalla ñu ko yalla defal te bu ko yalla jeexalee itam bam dem yalla buñ ci am fàttaliku boo xam ne daf ñu naxari ñi dem yalla leen yalla yeeram ñi tedd ci lali yalla leen yalla safara ñi dara dalagut yalla bu leen dara dal loolu yëpp ñu koy ñaan ci barke alquran di ñaanal itam khalifa bi fi ci Medina mu Cheikh Ahmed Tidiane ibrahim Niass yalla yok fanam yok wëram yok mën-mënam ndax lu bax lu nek mom mu ci kanam taxaw te du am dara lum ci lu ko ci jax jaxal wala dara lu bax loko wax rek kontan na ci te buguna mu mat motax ñepp sawar pour mbir mi ñu def ko ñi tok nak ñen ci serigne daara yi nek Medina la ñi gëna mag ndax Medina fim ne daara yi bari na ndax téeméeri daara ak ñaar fukk nga mu ngi fi waye serigne daara yi nga xamne ñoo lépp ci daara yooyu ñu ngi fii toog ak ñun kon ni ñu ko waxee mooy ku nekk rek na nga organiser ci sa daara ñu xam ñaata kaamil lañ am li nga xam ne itam ñoo daan jógee walla dex di ñëw fii ñoom itam nañu organiser ci seen dëkk ci seen daara yi lu ñu am rek joxe ko waa Kër Abibu waa Taïba Niassène waa Koosi waa Gàmbi sax ndax ñëpp daan ñëw ngant nag am na te ngant su demee ba indil la loo xam ne amoo ci benn pexe boobaa da ngay dox ni jamono di doxee mm-hmm. ni jamono di doxee fi mu nekk nii mooy ñu defee ko ni man a am Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu dafa wax ne mm-hmm. bi seyri zamani ka sir mm-hmm. ne na sa jamono nu muy doxee doxeel noonu jamono nag fi mu ne lim laaj mooy nii ñu séddalee wax ji ku nekk rek def ci sa daara soo paree joxe lim bi yàlla ñu yàlla nangul jëf yàlla ñu yàlla defal tawfiq bañ ñu dugg ci ci jaamu matal ko ci jaamu te lepp luñ ci daan am ci lu baax rek yalla nañ am lu ko ëpp dat bi ba bi kan, di ñew ata lay tolo ci wer 24 24 vingt ba bi di ñew di 24 ci wer juin bi ci lañuy la ñuy commencé bu njàngee àllarba alxames ajjuma da tolloog tolo 26 bu julli ajjuma pare ci lañuy ñuy xatmu ñaan yalla ci rojo bi fu nit tol tol rek hmm man nga wax amin da nga deglu xatmu bi ci rojo bi dang ko deg ci al fayda tijaniya bi tam moy suñu rojo al fayda bi nga xamne ak ko tv ak kep ku and ak ñom mo xam al madina mo xam baye fm ñom ñep ñu ngi yëngatu pour di tassare li nga xamne mom la ñi doxé fi ci pay bi yalla yalla dimbalé len yalla yalla yok len tawfiq may len damitam ci liggéey bi yalla yalla aral ñu bopam yalla ñu yalla wutul bopam bu ñu aaree itam yàlla nañu aaral suñ diine yàlla ñu aaral suñ diine yàlla ñu aaral suñ diine yàlla nañu aaral itam suñu àddina ndax àddina bi mooy warukaay bi pour dem ca aljaana yàlla ci waxtu ko soobee yàlla na yàlla may ñu dund yu gudd guddu bala ñoo dem ci loolu dund yoo xam ne lépp ci topp yàlla ak def lu baax lañ koy def yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal yàlla na yàlla nangul ñu te yàlla yàlla may nawet barke yàlla ñu yàlla may nawet barke yal na ñu yàlla may nawet te barke yal na yàlla wàccee ndoxu asamaan te def ko muy ndox mu barke génnal ñu gàncaxi suuf te def ko muy gàncax gu barke yàlla na ñu ci jëriñ ñun ñëpp te yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne suñ ci jëriñoo sant yàlla te yàlla na yàlla di dolli daa iman te bañ a wàññi te fitna bi te mbas mi bu demee yàlla na ko yàlla demee te yàlla bu mu dellu si yàlla bu ñu gisati lu mel ni moom wala lu ko jege numéro baraham bi tey yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ ko bi ko papam amee numéro bi mooy 634 635 48 25 mooy numéro sëñ Daara Cheikh bi tey doomam moo ko amee Alfayda itam seen numéro 77 559 55 77 boobu itam ku ci oote loo jàng rek boo fa ootee joxe ko danañ ko indil commission bi ci juma ji ñu def ko ci carnet bi yàlla na yàlla defal ñu taw fekk nañu yàlla nangul ak gërëm rajo alfayda bu baax wax deug yàlla ñi ngi def xidma bu rëy ci liggéey bi ni ndax tax nañ lim buñ daan am rek yakuna na ndax ñi koy déglu ci biti ñepp danañ mën a bokk ci jang mi te lolu yëkëti na ité yu bari bari di gërëm alfayda tijaniya di gërëm itam Baye FM di gërëm Kossy TV di gërëm Malben di gërëm El yàlla yokk leen dimbal yal na yàlla jox leen barke barke alquran barke borom dëkk bii muy Mawlana atbul irshadi wa gawsul ibad Cheikh Ibrahim ibn Alhaji Abdillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa